ba tey ci seen scandale di jour Abdou Nguer moom nag daal dinay yedd daal dinay diggal daal dinay conseiller Mansour Faye ñu déglu ji ko ñëwaat nuyu ñëpp di leen gërëm tamit di leen sant di wax di lancer appel Mansour Faye lépp lu ñu fa tënk rek na ko bind mu publier ko parce que ko koo xam ne lu wax miim ko moom dee ko bindloo rek wala ñu koy enregistrer def ko vidéo waaw loolu laa koy diggalaat di ko conseiller moom Mansour te lépp lu muy wax tami na ko xam ah ila laay faal ah, baax na du samay wax de ki war a dem ki war a dem Saint-Louis xam ngeen ko ki Mansour Faye war a accueillir xam ngeen ko man nag du samay wax sama yónniw ci Abdou Nguer moo wax mu ngi noonu yéen a ko déggandoo waaw koo xamante ne euh, loo leen waxtaanee mu siw man mu ngi nii sama musóor gis man sax man sama mus xam nga jamono amoon na fi bu bu téléphone waddee sax ñu naan Macky Sall waa kii euh, sama musóor gi président Diomaye li ma ci wax xam naa moo ko neexul tas na sama musóor gi xam nga ni bi may commencé scandale du nii laa dugg see waaye bi ma waxee mbirum damaa bëgg a nekk candidat ba léegi musóor gee tas waaye dinaa nekk de ma ne dinaa poser sama candidature deux mille quarante incha allah bu ma yàlla bàyyee ak bii bii maa ngi ak bii ak bii dinaa posé candidature waaw euh, Mansour Faye euh, yóbbante bi nag mu ngi noonu dégg nga nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax gis nga lu ndaw nag lu ndaw yàlla da koy may bopp foo fekk lu ndaw day am intelligence bu foo fekk ñu ne xool ko ak ndawaay bi boo leen xoolee sax même ci classe yi dans le salles de classe dangay gis ko ci gën a ndaw mooy gën a intelligent bopp bi Abdou Nguer nag yebal na la. man maa jottali débat bi dafa ni la nee na kii ñëw foofu sagam lu ko waaye wax mu nettali du secret de d'état du secret de famille du secret mu maanaam bu boo ko munti wax mu yëgle ko dinal ko na nga préparer say feuille nga teg ak nga jënd say big yoo xamante big ya du ñu kale maanaam doo commencé bind big ya nang rëdd du ñu nangoo rëdd nga jënd sa paquetu big teg jënd say kamera teg lépp nga teg ko lu waay di wax rek naka wax ca kaw te lu waaye di wax rek fexeel ba lakk fa olof bu leer nañ ndax nettali bay gën a yomb waaw mën ngeen fa lakk français mu nettali ko olof nettalee ko ñoo xam ne jaarul yoon kon lépp loo ngeen boo leen ko waxee ci tubaab bi pour tubaab yi dégg wala ñi nga xamante ne ñu ngi fii dégguñu ngeen bamtuwaat ko ci olof waaw si xam naa ne yow moom séeréer nga te kii ñëw aussi du pël mais boo leen mu nee xool te leen di traduiral pour pël yi tamit ngeen traduire ko si ba su ko defee nga am seede du samay wax nag Abdou Nguer a ko yebal Mansour Faye nee na sa gan bi ngay teeru suba ca samedi ba nga xam ne lu mu yëg yëgle lu mu yëg siw dañuy naan du du du du ma fen waaye lu mu yëg mu siw waajalal sa bopp Abdou Nguer a ko wax du man